Euh, monsieur Ndiaye ñu ngi lay dalal. maa yow yaay secretaire général LD Ligue démocratique tey jii ñu dalal la euh, wax ci actualité d'abord mu Sénégal mhm. tey jii nan nga jàngatee li nga xam ne moom mooy gestion crise bi. waaw foog naa ne ni ñuy gérer crise bi baax na. li koy wone rek mooy chiffre yi. Euh, foog naa ne actuellement après trois mois. Mhm. c'est vrai on a cinquante morts. c'est vrai cinquante bari na waaye soo ko seetloo bariwul mhm. moo tax foog naa ne ni ñu ko gérer baax na parce que crise bi du crise sanitaire rek crise dafa entraîner aussi crise sociale ak crise économique mhm. soo xoolee sanitaire bi rek gérer sanitaire bi rek di nga def musiba soo xoolee soo gérer économie bi rek di nga def musiba moo tax dañoo war a am une gestion équilibrée du caractère de la dimension sanitaire dimension sociale ak dimension économique mm-hmm. léegi nag noonu laa ko gisee te foog naa ne gis naa ne président de la république ak exécutif bi niñ koy gérer vraiment baax na. gis nañ ne ca ndoxteel ba ñëpp dañoo mànkoo woon dégguñu benn yoon coow ñu tàmbali ami parcours ñu gis ne. Thiaw mujjee génn ci politique bi eh, tantôt ñu di ñuy ŋàññ yenn ci doxalin njiitu réew mi yow mi doon politique tey jii nan nga jàngatee situation boobu. ni ma ko gisee manko bi amoon manko mu ngi am ba tey manko mu ngi am ba xaj na nag am na quelques baat yoo xam ne nii ñu ngi jóg pour euh, critiquer waaye ñoom it foog naa ne ni ma ko gisee war nañoo waxtaan ak ñoom. pour gën a dëgëral manko bi waaye manko am na ba tey mais war nañ koo gën a dëgëral gën koo yaatal noonu laa ko gisee. kon yow jàpp nga ne confiance ba tey mu ngi fi. waaw waaw bi ba tey mu ngi fi. Euh, ci ci l'essentiel bi hmm. léegi nag confiance du doy mukk dañ koo war di yokk toujours moo tax waxtaan ak ñenn ñi ba manko bi bennoo bi gën a dëgër yàqul dara daal day defar monsieur parce que crise mhm. parce que corona bi. Mhm. corona bi attaqué wul Benno Bokk Yaakaar rek attaqué wul euh, opposition bi rek attaqué wul enseignants yi ñëpp corona bi ennemi commun la pour peuple sénégalais bi kon peuple sénégalais bi yëpp ñoo war a mànkoo pour xeex ko léegi nag pour dëgëral mànkoo bi waxtaan yaatal waxtaan wi baax na ci loolu yàqul dara. ñu wax ne assouplissement euh, gën a yokk lii di assouplissement yi. ñu gis ne euh, dafa mel ni dafa teel ndax euh, lii di feebar bi moo ngi gën di law ci dëkk bi yow it loolu noo ko jàngatee. xam nga man pour man assouplissement bi lu baax la. parce que mënoo ne damay xeex corona rek nit ñi nañu toog seen kër alors que nit ñi li ñuy dunde au jour le jour ci biti lañ koy amee hmm. bon Euh, mesures sanitaires yi baax nañ naam waaye dañoo war a tenir en compte dimension économique bi ak dimension sociale bi mhm. léegi nag fi nga xam ne nii foofu la ñu war a gën a insister te assouplissement yi conséquence bi mooy nit ñi dañoo xaw a bàyyi seen bopp mooy gestion barrière gestion geste barrière yi geste barrière yi dañ cee war a insister nit ñi raxas seen loxo def distanciation bi sol ay masque nga fa ne lajj bi ci ban anam la jóge maanaam lan moo tax nit ñi bàyyeeku kan mooy fautif bi. xam nga absence de communication bokk na ci ensuite mobilisation dañoo war a def une mobilisation aussi bien individuelle nit ku nekk ak collectivement pour ñu insister ci geste barrière yi parce que objectif bi mooy ñu bañ a déborder c'est-à-dire cas grave yi. bañ a ëpp loxo daal mhm. noonu laa ko gisee moo tax geste barrière yi dañoo am importance léegi nag nit ñi ay nit lañu ku ci nekk dafa war a jëfandikoo xelam mhm. xam ne feebar bi ku ci nekk da nga cee am responsabilité ku nekk yow yaay responsable sa propre wër gu yaram mais yaay responsable aussi wër gu yaramu ñi la wër mhm. bon loolu dafa am importance ñu prêter une grande attention aux gestes barrières aux mesures barrières pour ñu bañ a déborder pour feebar bi bañ ëpp loxo. Mhm. Nicolas Ndiaye nga doon secrétaire général LD tey jii seen compagnonnage ak euh, lii di APR fan la toll. compagnonnage bi baax na lool ni ñu ko gisee compagnonnage bi amul benn problème léegi nag euh, ci ak corona bi réunion yi. du mën a du mën a duñu ko mën a def niñ ko daan defee avant corona bi mais compagnonnage yi compagnonnage bi dans le cadre non seulement avec APR mais ñeneen parti yi compagnonnage bi baax na léegi nag même lu baax dañ ko war a yokk mhm. mais baax na waaye mun nañ ko yokk war nañ koo yokk war nañoo yokk waxtaan yi war nañoo yokk diisan diisoo bi war a yokk aussi concertation bi daal. monsieur Ndiaye li ñu yokk mooy lu doyul ndax bu ma la déggee ngay wax dafa mel ni communication bi dafa néew loolu ci biir compagnonnage bi. déedéet nekkul ne lu ñu yokk dafa doyul. Mhm. c'est-à-dire yokk gi yokk gi amul fin. maanaam daal ndab loo xam ne nii la kenn mënu koo feesal ba mu fees del mhm. bon toujours même su baaxee mun nañoo def lu gën. Mhm. li gën. waaw mun nañ ko améliorer daal. tey jii ngeen doon parti politique. ñuy waajal local yi donte jamono ji corona bi la ñëpp di waxtaanee waaye it faw ñu sóoraale local yi ndax mooy échéance yi nga xam ne moo nekk suñu kanam yéen au niveau de la LD lan mooy seen taxawaay ndax mën nañoo jàpp ne da ngeen di dem ak seen candidat. Ah, des fi ñu toll nii ñun ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar. Mhm. te cadre bu baax la. moo tax li ñu gënal mooy ci localité yëpp ñu dem dans le cadre de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. fees mu ngi am. waaye nag su dee euh, su dee am na ay localité yoo xam ne nii jéem nañ ko te mënut dem mhm. léegi dina dinañu sàkk yeneen pexe waaye ñun li ñu gënal mooy localité yëpp Benno Bokk Yaakaar def benn dànk ñu wut ay candidat ñu dem pour gagner élection yi niñ ko defe woon ci dernière local yi mhm. waaye it fàtt du ñu fàtte suñu bopp li ñu gënal mooy ñun LD am le plus de maires possible ñu am le plus de conseillers possible te loolu dinañ ci liggéey waxtaan ci aussi ak suñuy euh, naataangoo yi nga xam ne ni ñoo bokk benn bokk yaakaar. tey jii euh, gis nañ ne bu ñu xoolee li nga xam ne moom mooy information yi fan yi euh, gis nañ ne dafa mel ni njiitu réew mi dafa nekk di waajal boppam ba tax na di jël ay ex adversaire politique Euh, jël leen boole leen ci liggéeyam gi tey yow noo jàngatee loolu. loolu mënuma cee wax lu bari parce que kenn mënta nettali géntu jàmbur. Mm. président de la république moom lañ fal moom moo mën a nommé à des postes civils et militaires. Mm-hmm. Euh, bon day nommé ni mu ko gisee daal noonu la noonu loolu laa gis ci mbir mi. Mm-hmm. léegi nag euh, li ci kanam rawali bët en tout yi ñun ñëpp. Benno Bokk Yaakaar dafa war a def benn dànk pour ñu gañe ko ni ñu gañe woon local yi en 2014. Mhm. yéen LD ndax da ngeen di encourager tey lii di transhumance. déedéet ñun du ñu encourager transhumance. Mhm. pour ñun respons nit ñi ku nekk dafa war a am loo gëm waroo dem fenn ngir poste rek mbaa mbaa xaalis. Mhm. waaw waaye nag nit ki li koy yóbbu fenn moom rek moo ko xam mais ñun du ñu encourager nit ñoo xam ne nii. dañuy dem fenn ngir poste mbaa xaalis. monsieur Ndiaye secretaire général de parti nga euh, ku wax euh, parti politique di nga wax ci ay jongante gannaaw local yi euh, ñoo ngi waajal li nga xam ne mooy élection yi faw ñu wax ko donte jotagul ndax LD mën nañoo xaar ñu am seen candidat. loolu mënuma cee waxagum dara parce que élection présidentielle yi sori na. Mhm. deux mille la diggante bi dina am élection locale. Mhm. dina am élection. législative ah, lépp lu jot rek dina ñëw toog ñun LD def bilan euh, dresser euh, ay perspective ah. loo xam ne nii sori na soo ci waxee dangay euh, def ci politique rek dangay def ay nuñ koy waxee ci sax da wax loo xam ne nii daal du dara du la ci wóor fi ñu toll nii daal élection locale yi moo gën a jege dinañ ñun toog seet suñu doxalin mhm. élection législative yi aussi su ñëwee dinañ def suñu bilan dresser perspective élection yi gën a sori muy élection présidentielle yi aussi loolu la ñuy def. wax ci leneen muy li nga xam ne mooy littoral bi gannaaw coow gi nga xam ne jamono ji mooy lëmbe duñu waxtaan ak yow tamit te duñ ci àddu ndax euh, yoroon nga wala sax bokkoon nga ci commission environnement euh, tey jii nan nga jàngatee li nga xam ne mooy bradage du littoral. ñun bradage du littoral d'accord ñu ci moo tax euh, organisation yi nga xam ne nii ñoom ñooy xeex pour littoral bi. ñu jaarale ñun LD ànd nañ ak xeex boobu moo tax aussi ni ma ko gisee dafa mel ni exécutif bi jël na conscience ci loolu wax ji ministre environnement wax man ànd naa ci vraiment dañoo war a dañoo war a arrêter bradage littoral bi mais moom catégorikul dafa ne ku amul quitus waratu faa tabax donc ça ne veut pas dire que dakkal na ko. waaw xam nga ñu ne littoral bi kenn du fa tabax. Mhm. waaye lañ fa war a tabax mooy ay édifice euh, public yoo xam ne nii vraiment ñëpp lay jëriñ. Mhm. loolu mooy euh, li ñu war a def. ensuite dañ ko war a aménager ba nga xam ne ni nit ñi dinañ gis géej gi ensuite nit ñi dinañ euh, am accès plage bi. dafa mel ni loolu daal de plus en plus euh, de personnes consciente nañu ci loolu te ñu ngi koy xeex moo tax ñun ànd nañu en tout cas ak euh, mesures yi te ay mesures de rectification war naa am daal pour littoral bi. tey jii repos biologique bi euh, monsieur Ndiaye lan moo ci sa jàngat. repos biologique bi euh, pour man lu baax la. damaa xamul nag yow ci ban côté ngay wax repos biologique. au niveau mondial. donc tey jii euh, gis nañ ne. pollution bi dafa gën a wàññeeku. c'est lié au coronavirus. mu tax ba industrie yu bëri liggéeyatuñu donc ce qui est favorable à ceci cette situation. waaw waaw c'est-à-dire fi ñu toll nii nit àdduna si yëpp ñu ngi xeex pour euh, ci changement climatique bi affaire environnement bi loolu mooy euh, jàngoro yi dal adduna si du dal benn réew mbaa ñaari réew àdduna si yëpp lay dal mm-hmm. loolu mooy xeex bi humanité bi yëpp ñoo ko war a xeex corona bi wone na ko c'est-à-dire changement climatique yi àdduna si yëpp lay la dal corona bi wone na ne àdduna si yëpp la dal bon adduna si fi ñu toll nii benn bloc la boo xam ne nii ku ci nekk dafa war a jël conscience ne lii bon ci réew mi moo bon ci réew ma le bon ci àdduna si yëpp mm. bon humanité bi moo war a jël conscience que dafa war a sowe boppam wàññi wàññi xeex bi ci suñu biir wàññi bugg xaalis bi def xaalis au-dessus de tout Mm. def profit au-dessus de de tout fi ñu toll nii dañoo war a def dund doomu adama yi au-dessus de tout mm-hmm. ci ci environnement bi ci corona bi ak ci beneen euh, musiba bu nara dal àdduna si foog naa ne suñu defee bakkanu doo doomu aadama yi suñ ko defee au-dessus de tout dinañu mën a gérer bu baax li nga xam ne nii mooy dal humanité monsieur Ndiaye merci beaucoup. maa ngi lay gërëm di la sant Elisabeth. Mhm. ak réew mi. may fàttali suñu auditeurs yi ne ñoo ngi doon dalal secrétaire général bu LD di monsieur Nicolas Ndiaye merci beaucoup en tout cas.